alal dafa sax ci xolu borom. dëgg la ñu ñoo war a njëkk sàmm suñu culture. Hmm. maam gën koo fonk gën koo ñaax ba nga xamante ni dara du ko yàq. waaw ndax li ci gën a rafet mooy nit ku ne war nga am foo xamante ni tey jii war ngaa joxe baaraam bu la laajee foo jógee nga ni fee ndax boo demee boo xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga jóge moo tax cosaan am doole cëslaay boobu nag ñun duñ ko yàq dañ koy gën a dooleel barki dem ba ma laajtee lan mooy kankurang benn góor dafa ma wax ni ma ab ndab la bu ñu dëpp waaye boobaak léegi kenn dippiwu ko. dippiwu ko dëgg la kon nga xam ni. loolu ab secret la boo. xamante secret la secret boo xam ne nga doon ci suñuy maamaati maam. waaw du ay foo du ay caaxaan. du lu ñu war di café wala loo xamante ni sa amaana xëy na ku ko dem ba ngay foowantoo war nga xam ni dëgg-dëgg lii du ay lii du ay ay caaxaan ndax man wax dëgg ne xala man euh, mbi ndar gama dëkk ñun li ñu xam mooy simbu gaynde si simbu gaynde la ñu xam boo gisee magum jëmm nga solu ba rafet seen ab gaynde nga daw du caaginu da nga ragal gaynde ga la waaye dafa am lu muy wax maam exemple laay jël or ma sujet wu or sujet wu ma mhm. ndax tey ji boo nee simb dan lay nettal ñi la bu njëkk mhm. ña daan dem di rëbbi gaynde bu leen jàppee ba yàlla dogal ñu rëcc ca loxoy gaynde googee mhm. dafa am dagar goo xamante ni moom la leen gaynde gi di bàyyil te pour mu dañ faw ñu simb ñu ndi ci ay taarix yu bare. moo tax dëkk bu ne am na ay mbiram. mbiram tey boo demee Guiya ca Podor. da ngay dégg ñun la ci bolo dañuy jët ab jësit may may do ba mu génn ci dex gi doon ab rab boo xamante ni ab may ma doo lay doon jësit bu rëy lay doon ñu jat ko muy fecc ci biir ndox bi ba génn ñu defal ka yan kay defal mu delluwaat kon réew mu dëkk bu ne. am na sa cësaay bopp waaye lii ñu ne ci mbuur Tamboura mooy seen cësaay kon damay delloowaat micro bi rek euh, keneen wax lu mu ca xalaat waaye lii bu ñu ko yàq rafet na ba noppi sànq dama xool Kankoura mu yuuxu ni ma jooy <laughs> Jibi wax na dëgg wax na dëgg wax ko mu maat ngay geddi geddi wax na dëgg ci Soucouré élo élégance bi Djibi doon waxee day wan ni maanaam culture dafa fort. nag may xeex. genre euh, je voulais dire que maanaam à travers la culture. waaw ci nga mën a wane taarug dëkk. dëgg la à travers la culture. ci nga mën a xamee fan nga bokk. à la culture. ci nga mën a yëgee sa bopp yow man fii laa bokk kon nii laa war a doxalee. ak ci fànn bu mu mënti doon moom li mu wax dafa maanaam dafa nekk loo xam ne lu mbuuse la ci bët. mais boo ko lambee xam ne mbuusu tànk la parce que si yow foo nga bokk. dëgg la wallaahi azim. dëgg la dëgg la bi nga yëkkatee nii yaa ngi ci phase war ma daam kenn ku war a wax daam kenn ku a wax te nawle bëgg mu ñu may dog lu bari naka yoon si. dafa am fu ñu war a dem. ndax xam nga. Euh, dëgg la li bëgg wax mooy. culture culture dafa fort. lu tax lu tax culture fort mooy. am na ñoo xamante ne am na ñoo xamante ne dëkk yoo xamante ni. ñoom seen culture ay tungune la. wala <laughs> ban dëkk la. ay côté. loolu du culture du culture papa xaaral. dafa am fu mu a dem waaw day nelaw moom day nelaw. papa ngeen koy bàyyi mu yeewu ni di wax lu ko neex. wuy ma papa ma waaw déglu ma rek dafa am fu ñu war a dem. dafa am fu ñu war ñu war a dem te dafay door a yeewu. dafay def jël ay sieste moom ci biir émission bi day jël ay sieste. dama wax dama wax rek ngeen jékki-jékki rek ku ne taf sa gémmiñ. dafa kii wuy ma. xam nga li rek déglu ma dafa am lu ma lay wax. dafa am fu ñu war a dem papa am di bësal sa xol. may ñu lool rek bësal sa xol rek. bul dem bul dem mu wéeruwaat rek. mën na nelaw Mali la Mali la dëkk bi waaw kenn yeewaat. maa ngi nuyu bambara la. maa ngi nuyu waa Fuladu man fa laa jóge waa Fuladu moyenne Casamance waa Kolda Vélingara maa ngi leen di nuyu ah eh, maa ngi nuyu waa Kolda bu baax a baax Ziguinchor Sédhiou eh, di leen ziar alors eh, finalu keroog concept ba ñu defoon fële ah. xam nga tey. xam nga 2S daal dafa mën dafa nekk di innover. Ah. mën di créer mbir. maanaam fu mu dem rek day adapté wu ak euh, ak contexte bi. Hmm. bu ñu demee keroog mbuur danoo créer Sénégalais yi nga xamante ne moom mooy euh, euh, nuit blanche. nuit tey nag ñu ñëw def Sali Baye Night. Oh. mën naa ko détaillé tuuti. wuy ma mise en scène sa baaram bi ñëwaat na mooy nag may dagg yeggaleen. alors ci loolu tey la ñuy def finalu léebi ndax yéen. yéen a finalu ci demi final la ñu nekk Jibi Sëy ak Aada. final <laughs> la sax. léegi ya keroog ñan. dañ koy continuer fii waa déglu ma rek Adama Fall yow ak Jibi Sëy. waaw papa ak ak Doucouré. xanaa ma bi rek. ayca demal ubbil waaye ñu dem gars yi ayca damaa bëgg mu tàng damaa bëgg mu tàng bëgguma mu sedd yëkkati leen ma. sawaaya ngi nii transition yi doy waar la leen amel waa baax na. jibi say siif ma balaa siif li nga moom. jibi jëlal jibi jëlal jibi jëlal. jibi jibi say jëlal sa micro. jibi jëlal lii moom. Malaga Mbaye li mu wax ni démb li ma jibi def. moo juddoo ba léegi musuma nit musuma ko def. ñëpp laa raay. nee dafa am benn waay maanaam pièce de théâtre lañ doon def Lat Joor mooy affaire de buur yooyu noonu fi ñu ko doon defee doon place ndox bari ay yoo lool waa ji takk takkaay buur yooyu noonu takk ko jumbax bi di feeñee pooj ak faaru mbaam mu taxaw. bi mu taxawee jékki-jékki naan ni tànk bi naan nii di yëngal buur ni ko ah, dammel ana lu tax sànq ba léegi nga yëngal sa tànk munu ko buur yow ka yow yi nekk Kajoor bàyyiwuñu kenn buur nee na moom yooyu ñoo koy mat mu continué waat munu ko dammel li nga yëngal sa tànk bi lan la munu ko buur même ma sawit sawite ñëwaat dem ñàkk na fayda ci dégg mais boo amee technique dégg ko danaa la dalay wàccee. moo tax jëlee fi jàmbur baaxul du neex ñëwal ñëwal gis nga gis nga. xam la piégé. maanaam sirul lépp bi dama ko téye si classe la ñu nekk de. xoolal <laughs> mais mais wuy ma da nga fekk si li nga li nga def neex na ma lii laa bëgg. lii laa bëgg ñu koy defante léegi. di ko defante mais déglu ma may ko. dama ni may ko may ko. dama ni classe la ñu nekk classe la ñu nekk. ku nekk na joxe leen mën. Mbagal Touba ren ji. premier wuy ma lii mooy exclusivité wu classe lépp. Sénégal saa si li ma tëb kër Serigne fekk lanu dencaloon sëñ bi ci reer mu jël bool ba këf ka nar a daw bëkk néegee topp ka jàpp sàcc bi indiwaat ci kër gi di ko dóor ay kuur ci booru tës sëñ foo tollu dégg yuux yi sëñ yeewu ci nelaw ni lan la bëkk néeg bu yaru moo tax tubaab bu ñu fa jàppee sàcc na sàcc bi waxal boppam bu bëkk néeg yi waxalee rek doo mucc bëkk néeg bi nii sukk ci kanamu sëñ bi ni ko kii de dafa dugg ci kër gi jël ci sa wërsëg doon ko yokk ci wërsëgam ay ñun bañ ko séenee ci la yokk ay jéegoom ñu topp ko ba jàpp ko indiwaat ko ci kër gi jël aw yar teg ko ci deram mu daal di yokki ay kàddoom sàcc bi ni demeewul noonu <laughs> ñii bëgg nañ ba rey ni la ko waxee boo ko dégg da nga yaakaar dafa sell xoolal sama digg kii naa ko ni mu ko def. ayca. ah am di. waxaat ko waxaat ko waxaat ko. ñëwal waxaat ko. jibi say Sénégal kaani Espagne. li mu teg sama loxo daa tàng mënu réplique. Ah, DG. DG. E. deux siifal. yéen ñaar deux. ñaari gumba dañuy yelwaan waa romb leen dina ñaari junne ngi waaye mu ngi lay gën a li da koy waxaat Jibi Sey munul nekk ci lan la wax replay mais Jibi Sey la wax. bii rëcc na dèjà dëgg mi moom da leen daaneel. <laughs> deux un. xam nga Habib. Luppe. Euh. maire bi dafay jóge Touba. bàyyi ko bàyyi ko may nu waxtaan ci bisee may nu waxtaan may loo xam ne ay góor nu waxtaan. non bi dal ba jeebaa dajale butitu nag ya nekk yépp rat mm. def ko ci mbuus uuf mm. guddi gi yëpp bi nelaw ko mer bi ci biir oto bi la uuf butit yi di nelaw oto ba def tonoo maire bi yeewu gis ñii dee ñii biles maire bi xool gis butit yi tasa maire bi ay man deegu ñaa gi ma dara deen wa kay nettale samay ndaw la il point xool Habib na xool 3 pour Djibi Seye Adama Fall 1 pour Niankou. Doucouré ah. eh, ak waaw may leen waxtaan. Adama Fall. non yéen ku ci njëkk non man fi laa far na mais règle mooy ku njëkk a yëkkati rek moom mooy dem. amul concertation Habib wax ko dëgg la mu muy dafa dugg train. waaw. mais maire yu ndar-ndar yu tubaabe yooyu. waaw nekkate maire bi day neer. dend ak ku bëgg wàll koo xam ne <laughs> maire bi karaaf la teg xam nañ day neer bu bu train bi bu bi déparé day wàccu. ndekete maire bi fonde la reere yow kii bese na tension bi yaa ngi dégg waaw ni mu dendeeg waa ji train bi commencé daw maire bi di wàccu maire bu civilisé la rek day ubbi karaaf bi daal di daal di jël moussa def waa ji mu dendal moom defe ni maire bi fonde lay naan maire bi wàcc ci ci ci karaaf bi ba karaaf bi bëgg a fees mu jug benn instant yi dem si toilette waa ji profitoon Eh, naan wàcc. mu jël ci naan wàcc yëpp. maire bi dugg saa ko laa fonde yi dee leen ko suukar. <laughs> wax na dëgg wax na dëgg wax na dëgg. Kona ku mu maat ngay wax na dëgg. kat ah? <laughs> mais mais di constaté wu rek. nee na ku mayal candidat nee na ku mayal candidat. kat pour Djibi ak Adama Fall un. pour euh, ñu ngi concerté wu. Euh, so waaw. ah xam naa li ma la wax ndeysaan. wóor na yàlla sama yeneen baa ngi daw ñàkk entraînement rek. ñàkk entrenement rek c'est que wane nii bu la yaree ci jub rek doo mën a nettali lu dul dëgg. waaw man mënu ma lii. benn sàcc dañ ni ko fii kër dem la bu eh. dugg. sàcc bi moroomu sàccam yëpp ñëw seet si ko. ni dimbali ñu. xam na ni benn kër du la romb waaye kër gi jéggal ñu ko këru dëmm la sàccal fu la neex waaye ñi dañuy lekk nga joxoñ fan sàcc bi bàyyi ba xaaja guddi jël la mu yore woon aslëf eh. jënd ci dëwliñ diwoo ko ba tooy xepp def naka ndeyam juree woon dëgg la miiru kër ga trois mètres lay sàcc ba tëb ni muy wàccee jiital ay tànkam xanaa xottiyee ña nga ca gannaaw mu ubbeeku verticalement d'une manière triangulaire. ñëwal nekkate fa mu sëpp yaram ba fa la nag ya nekk. benn nag xool xoot yi gis muy nes nesi mu yaakaar di ay doon xorom la daadu kay mar ni ko daa ci ma jóg taxaw ci kaw miir bi miir micro ay dem ma gis man ngeen bëgg def te seeku ba waxe waxe ko mo ma kii 5 réplique 5 à 1. mënu mënatu leen dab mukk ci àdduna. temps émission moo ñu ko mayut. Habib. siifal. ndox mi daa dégg ñuy tàggee. waaw ñoo dem rek. mu bokk ak waa ji tur bokk ak moom sant. waaw. dof bi bënn bët yi di jooy. Eh? nit ñi naan dof bi lu muy jox xam nga dof bi jooy raar na mën ngaa gis dof booy jooy. non non non bëriwul ñëpp ñëpp jaaxle. kii li muy jooy mu li muy jooy waa dof bi jékki-jékki daan seen waa kër yow ndekete dee naa bu yàgg ngeen ma koy nëbb <laughs> waaye ku fi deeti du la ko <laughs> na lépp na. <laughs> jeex ñëwal ñëwal. Sakazulu yum wang léegi. yéen amu leen lépp xanaa. non nekkul lool de xam nga. xaaral cinq ah, dañuy euh. départager rek buñ paree. dañuy départager nank mais eh, xale bu jigéen bi dafa tàmm xeex <laughs> kii li muy liggéey li mooy liggéeyam ngeen woo ko ci lii xale bi dafa tàmm xeex doo koñ ba nit dee xeex sax ñëw fay di xeexal a xeex benn jour yàlla dogal muy xeex ak jigéen ju ko gën a paak kooku for dam mi ci mu dugal ko ci génn gi xanaa bañ des ci ko xale bu jigéen ba yàlla dogal nattu dal mu dem ba tollu ci sëy waaye yàlla dogal na amul bëñ oh. benn grand xool ko yërëm ko forcer ko ba ñëm yëpp xale bi bil war ka grand bi ñëw un jour di ko doxaan si mun nga nga baal ma dootuma sa classe dootuma lii ki nga posé loolu ba ñëm de oh. grand bi ni nga amul problème un an après xale bi di anniversaire am na bi waa ji invité ko jox ko boisson mu ndekete ba mu koy jox boisson da ko drogué waat da nga waaj jour boobu la war a dem Italie wekki poosé ya dugal ci douche ba xëcc sa bu dem bi mu koy woo waajaa ngi aéroport ndaw si dafa yeew rek sant ni ngelaw lu bëri dugg ci neex maa nga xamul lu ma lay xamal damay bëñ boo ma kii indilu gan ma bëñ laa wax nga dégg wax nga dégg wax nga dégg kii waaw. Ah, waaw daa ñu ñëw daa ñu ñëw daa waaw ayca ayca ñu ñëw ñu ñëw ci ñu ñëw ci ñu ñëw ci Doucouré. kii waaw. Euh, àdduna. dëgg la. da ngay teel a nangu. a ngi xool di xaar pour ma xaranteeg sama nawle yu toog mais ñun artistes yëpp benn nañ ji bisay. moom daa neex a yox la sama xarit nga nga bopp ñu ngi dafa dugg ci bank bi. waaw lii ma naa ko bongo maan yi. ah paa baa ba du yekk ci nelaw. taral SMS mu xool muy waa banque mu doom ji liiral ma doom ji ni ko papa état wu jox nañ la fukki junni jàppale la ko. Eh. paa bi daw banque. mu ne jaraax ndaw sax ti ba jox ko 5 millions. waaw première étage. waaw paa bu wàcc gars yi karkare de suuf si ni nga papa doon juum jaay naa xaalis bi bu yàgg. <laughs> wax na dëgg wax na dëgg wax na dëgg. courant su ko defee nag waa Sénégal waa àddina. xale bu jigéen bi. eh waa li lu doon ah. yaa ji daf ni ko booy génn naka sol slip ngir yàlla. waaw dëgg la. xale bi génn huit waaw ba neuf heures ci guddi la doo koy dugg. Sofia yaa ji ne ka foo ne woon mun ka dama dem xale yu góor yi at seen bal ni ma naa leen ko àjji yaa ji ne ka mbaa gis ñu sa silib mun ka man yaay may jigéen nga yedd ma man gis sama silib yombul de avant may yëg ci kaw garab gi laa ko simmi. xaaral maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw ci alaaji góor waaw nañu nañu waaw kii d'abord gis nga gis nga désordre bi bëgg bëggu ma ko. ah ah dañu dañu la dañu la nga naan désordre. ko jaxasoo na léegi lépp leen ko. ah déedéet ñaata ñaata ñaata. bul gedd nag 8-1. 8-1 la ñu nekk nii 8-1. donc Sofia dañuy ñëw dañuy. Sofia fumiste bi mu fumiste. waaw non ci champ bi la dafa war a yooyu lii lépp langue la. waaw di leen fàttali ni nag danoo danoo am deux heures mu nekk dafa am euh, euh, orchestre musical daañu ñëw ci wóy yi bu si kanamee Sofia waaye dañuy fàttali nit ñi suba rek incha allah ñu ngi foofu nga xamante ne moom mooy Sportland à partir de 15 heures. ñu ngi ñu woowaa Sénégal yëpp ñu ngi woowaa Petite Côte. suba dimanche la ñuy tëj émission yi ñu daan def Sportland ngeen bëgg ko lool ah. première saison waaw première saison bi ngeen bëgg ko lool sopp ko lool euh, bëgg ci contribuer ñu ngi invité ñëpp. ngeen ñëw ànd ak euh, équipe 2STV yi ànd ak ñoom Doucouré ànd ak ñoom Djibi Sey waaye itam seen star ngeen tàmmu ci réseaux sociaux yi et cetera et cetera euh, suba incha allah ce sera à partir de 15h. bëgg a jógee Dakar. mën nga euh, dem waaw rond point waaw rond point nga dem fa salam en face station Total salam transport ñu ngi foofu euh, ñoom ñooy ànd ak ñun ci ci bés bis suba euh, waaye itam mais Djibi Sèye Djibi baax na sa baaraam bi ci biir pot jàmbur alors di wax na ni aussi waa Nome Yàlla ñu àndal nekk lounge bu am maanaa file ci Saly ba tax na ku fi ñëw rek incha allah boo bëggee def night life génn guddi ak yooyu ah, fii lay xewee ñu ngi seen kaw terrasse bi nag ci coll gi la nekk n'est-ce pas euh, Djibi Seye eh, alors so waaw bi concours chant bi waaw dëgg la <laughs> doo ci génn nag de bu bi euh, sunu papa la ñuy bàyyi moom mooy tàmbali parce que li si des ci émission bi bëreetul. ñëppay waay waaw dañoo war a def benn concours chant. jagleel ko ñëpp balaa ñuy àggali ak euh, euh, sunu xarit góora. ah ñëppay waay. fan yegg ci ku nekk li nga mën. lan dem woy ak taasu. la ñu wax woy. waay da ngeen kaay koo fa la. waaw kaay koo fa mag ñi la. waaw ku ci benn woyu. artiste waaw nañu xale yi njëkkee Adama Fall waay. <laughs> waaye lu ngeen di dawee micro bi man xam nga Jibi dafa may motiver ci émission bi xoolal gis nga. Seye Jibi demal. kaay ko ba jëlal waykat bu la neex koy jël. boo nga maa ne pare ngeen. waaye jëlal ajo moom yaay Mbodja jëlal da nga imité waykat bu la neex école bu Matar Niang bu Sportland bu fële Ngaparou maa ngi koy nuyu yaay solo mooy yàlla yéene lay fay. waaw. buñ ko fàtte. <laughs> yàlla yéene. yéene lay fay yéene lay fay. jox ko da ngay xool waykat boo xam ne. yàgg na laa daaneel nga reprendre Sénégal nga reprendre wóyam parce que fii ku fi way xam nga abi waxu leen ko. suba am na enveloppe cinq cent euh, cent mille francs pour lii cent mille francs. Jaba tu note cent mille. Mbangaray mu dee ki yabante ya soxor. Ci doom ëllëg bu dee fa yóbbul ne woy sama ne. Jigéen bi fooba am doom dem sànni jibaale. Mbangaray mu dee ki yabante ya soxor. Ci doom ëllëg bu dee fa yóbbul ne woy sama jigéen xëy na ba day dee deegul ay booy jigéen ju foofa am doom dem sànni ji baa nga rey mu dee ki yaban ki ya saxar ay doom ëllëg mu dee way amul way sama naa très bien eh ah, xaayo Ibrahima Fall waaye yéen di lan la ni yéen ah. yaa ngi eh, eh, eh. ay ca soo ku ci topp Adama Fall Adama Fall Adama Fall Adama ah. Fall ban ban wooy moo ci sa ci waran tool léegi jeex na Ada Fass ban chanson moo la marqué bi nga nekkee xale wuyaatal ñu ko. maa bëri la ci woy lañ nekk Mbari fayama maam Samba yaay jalla Mbari fayama dëgg la dëgg la. léegi nag sama binom mooy waay Habib dang ñuy bégal bégal ñu. Spiderman. Birima Sambay Saar ngañ waalo. sëgg jooy sëgg jooy ngañ waalo. ngañ waalo may. sëgg jooy sëgg jooy ngañ waalo. so gis nga àdduna bu ñu la bàyyi dara ngay wéet mais damaa jóg accompagné ko ci sedd boo xam ne bu ñu ko nooy maanaam ci biir wax ji maanaam lii dama bëgg la ndax li ma ko suturaal xam ku nekk am na ku la bëgg taxaw tant kenn taxaw ma yow mënoo suturaal nit mënoo defaral nit ba pare te waxuloo ko yow mënuma loolu man dama dama taxaw ne mën <coughs> sama baat dafa dafa roog weer rek. non damay avertir rek di. non amul solo wax téléspectateur yi que ñu bàyyi ma xel. waaw te une heure matin jot na. que dama sonn aussi ah. bàyyi ma xel mais nga jàppal ma gaam. laayeen laa dama mën si kar. li ngay woy nii yëpp si kar mais dafa guddee. ngeen bàyyi ko xel. waaw incha allah. bismillahi rahmaani rahiim. kii mënul du ma mën a way incha allah rabbi. wuy laal ma demba. sapar nda ca ndaa kuy laal ndaat saay kuy laal sama doom jee ayo beyu beyu kuy laal ma demba sapar ga ca ndaaya kuy kuy laal sama doom jee ayo beyu beyu sama doom sama sappe lamata jooyo moom lay jooy doom dundal soo dundee ba nga liggéey <laughs> sarata def na vocation mu aw papa bambara may ñu papa ay ca aaya bis bi na waawaay na lii mooy jaam jarama mbay jaraatu may jarama jaraatu may dëkk boo dem ña ngay jara aw leen jarama mbay jaraatu may dëgala jarama mbay jaraatu jëlal demal jaay naa la maa la ko lebal maa la koy fayal sa jikko yiw na sa jëmm ji sax du ma ci doyal. waaw yaa ngi nii. waaw bu ngeen bongo dafay neex. ma taasu mu neex. xoolal laaj leen ma lu may bëgg a wax. si si wax. leen du kuuree looy bëgg wax. si si looy bëgg wax. lu xew ci réew mi lay bëgg a wax. si si looy bëgg a wax. su ma dese si bi lay bëgg a wax. si ko ñëpp waat lay bëgg a wax. si si looy bëgg ma nuyoo ak ñoom. nuyal. ma ma nuyoo ak ñoom. nuyal. salaamaaleykum. mu ni ko. ala ala. boo ko mënee da ngay yëngu xale bi ala ala ala ñëwal xoolal xala Manir Badjo yey xala Manir Badjo bi dëgër naam bi dëgër naam bi dëgër naam monte dëgër naam bi dëgër naam xala doxa <laughs> musuma gis lii ci àddina bàyyi rek danaa ñëw si yow di des émission yi bëreetul ayca gis ngeen lii nga xamante ne moom la ñu amal Salibaay Night vous êtes en direct sur la 2STV waaw kenn moo woyagul kii moom moom woyi ci des yëpp moom moom moom woy ah, ah ñu ngi en direct fii nga xamante ne moom mooy euh, Saly plus particulièrement Noméa nee naa leen mooy lounge bi nga xamante ne euh, moom la fi mu ne képp kuy ñëw fii ci Saly moom nga tàmmul sa bopp boo dikkee rek fii euh, ci station balnéaire bi di Saly vraiment ñu ngi fii am lounge bu am doole macha allah nekk à deux niveaux ah gis nga tonton Amdi tey bi mu fi duggee macha allah euh, kontaan na trop ah tonton di waaw kontaan na dana fi faral di jaar di fi naan si ay ay ay veram am na solo so. am di waay di appeler téléspectateurs yi toog di seetaan comme suba la ñuy def clap fin wu euh, première saison sport lon. Euh, waaw 2023. waaw émission de divertissement numéro un au Sénégal. sañ nañ ko wax ndax dañu ñëw prouver. dëgg la euh, suba incha allah di woo gars yi rek ñu dem fële ca rond point Cyprès. en face station Elton. waaw waa ci Salam transport. parce que maye nañu ay ay bus. yoo xam ne dina leen jëlee Dakar. indi leen ba Ngaparou sport lon waaye yóbbuwaat leen. Mhm. ci li nga xam ne moom mooy place boobu na ñëpp ñëw. en masse ñu ko foo bi la ñu école ngi ubbi. ñu concentré wu ci année hmm. scolaire bi. bu ko defee lu am solo ba mu bàyyeeg si yeeg waaw yi. waaw c'est la rentrée hmm. Sophia n'est-ce pas. suba le club de fin euh, Ngaparou à Sportland avec tous les animateurs de la 2STV képp koo xam ne jotoon na jaar eh, ci émission boobule suba bu ngeen ñëwee daa ngeen ànd ak moom ku bëgg a jouer ku bëgg def yeneen outil aussi am na yenn jeux et loisirs yu bëri yoo xam ne ni boo fa dikkee incha allah euh, mën nga koo def waaye itam euh, ñu ngi ak la petite cote ba mercredi ñu ngi fii à partir d'ici on va diffuser toutes nos émissions euh, muy du lundi au mercredi daañu ànd ak aussi la crème des animateurs de la 2STV di kontaan rek Sophia ci ci ñii mhm. parce que léegi gis nga nuyoo bi ni mu ni mu nuyoo bi am na fën mais dafa émotionnel mhm. ah, si nuyoo ak soxna si ak madame Sey ak ak yooyu xam nga parce que c'est c'est une famille maintenant on constitue une famille ah, en fait lii dafa baax parce mhm. que comme lii papa am na lu mu wax lu am solo que nekk nañ fi pratiquement mais déjà danoo gannaaw xoola xoola yi waaw wuy lii lii beneen télé mënu ko a mën nag waa a mën presque deux mois Mm-hmm. ñu bokk ndey bokk baay. Mm-hmm. rassemblement yombul. Mm-hmm. ndax jikko yi yamuñu. waaw waaye bu ñu demee ba toll ci càppaandaw bi. jikko yemuñu waaye kan moo la gën a marqué ci gars yi fii. ki ma gën a marqué ci gars yi wax rek garaaw ah. est-ce que du yow wala papa loxo di bëgg ko tudd. man moom papa moo marqué. <laughs> papa moo marqué de papa dafa njabootee ñëpp papa ñun ñun loolu avant la ñun. balaa lii di ñëw la mais man ñëpp ma marqué. black à parce que. saykat nga. <laughs> loolu defar nga boo xoon <laughs> man ñëpp a ma marqué. ndax euh, dañu dañu nekk sama ay frères yoo xam ne pratiquement defe naa ñu ngi doog a bokk sax ay plateau xamante woon nañ nag. mais ñu ngi doog a bokk plateau. mu nekk ay nit yoo xam ne nit yu talentueux lañu. mais yëguñu succès yëguñu seen bopp. te defe naa loolu bu fekkee yaa ngi koy dund ak sa collègue. dëgg la. nga gis ci moom simplicité baax na bu too boo toogee ci jotaay yu mel nii di ko fësal ndax euh, baax nañu mhm. am nañu yitte am nañu diine am mhm. nañu salaam waaye fonk nañu doomu aadama je pense que loolu c'est très important mhm. de par ma voix maa ngi remercier ñëpp waaye di remercier spécialement madame Ndiaye moom mu ñu jox confiance u confiance waaw ñu ñëw def saison bu mel nii ba Sénégal yëpp di ko coow ci say liggéeykat rek la jël déplacé télé. Mm-hmm. mobile direct. Mm-hmm. jox ko say nit ne xalaat leen. ak budget bi ci nekk gi nga ma saaga ak yërëm gi nga ma yërëm ak ndimbal gi nga ma ndimbal pour yàlla ma lay fayal. saaga gi nga lay fayal. et tàccu leen ko na neex. ndax na tal tal bon. tàccu leen ko mu neex narandax na tali tali randande ànd ak i sabar fii ba suba kenn du nu tee xoolal Sofia Thiam mooy madame Guèye mooy sama doom waaw ndey baax baay baax ci sa bopp ndeysaan affaire bi ndey ci la waaw fi daanu sa ndey la bu ma ndeysaan det sa dëgg ni ka rek Sofi sagal gi nga ma sagal waaw ak yaram nga ma yara ak bëgg ndeysaan yàlla xam na ne oh, masa masa yàlla na ne day jooy day jooy day jooy moom dafa gaaw ci jooy laaj moom tax Habib waaw mbëggeel la Sofia dafa dafa dafa Sofia mu jàppante euh, sama bàjjen Mbooja Mbaay dafa rafet danoo bëggante ñoom ñaar ba ma xam waaw wallaahi la jibi say teel say rongoñ jibi say loo ci jooyee ndeysaan jibi say loo ci jooyee lii mbëggeel dong nga koy def ak bëgg sa nit bëgg sa nit demul benn yoon bàyyi Mbooja Mbaay lu mu am boole ko ci lii moo am solo lii mooy àddina lii moo nu boole. Djiby Seye Djiby lii moom moo ñu boole ñun liggéeykatu 2STV yi Sofia xam nga ni ligg euh, euh, euh, Mbodja Mbaye dañoo liggéeyandoo ba mbokk feeñ suñu diggante. mënatoo yegg leer contrat jàmbur la kay toog nii. eh Djiby Seye. Djiby Seye nga liggéey ñu lay fay nga doon jaaral ni ngay muus muus da ngaa sonn rek ñëwal nii. ah. non waaw nee naa la waaw noonu di dafa doy waar. xam nga xam nga liggéey en famille. ngay liggéey ak nit yoo xam ne dañ la bëgg yëg la euh, euh, moo tax ma ne man euh, papa dafa ma marke nga marqué ma Adama Fall marqué ma waaye itam Jibi Sey ak ñànku ndax waaw ndax da ngeen di ay nit yoo xam ne da ngeen yàgg si aar yàgg si gém bi waaye ngeen bàyyi ndaw ñi di doxal gis ngeen saa yi ne noppee rek ñoo ne leen kaay leen dem te pourtant bu ngeen exigé woon mbir ne dañ koy def loolu la ñuy def ndax yéene suñu kilifa mais nag dañ leen ci jaajëfal ànd bi rafet na euh, j'espère que suba <laughs> non Habib yaa baax ah billaah yaa ñëpp non wallaahi da sérieusement rek deux secondes rek mosuma ñaan deux secondes sama vie. waaw mais te dama ko ñaan te dama koy forcer. dëgg la parce que gis nga lu baax. bu mm. jeexee ci ay ànd. ànd ba amatul njëriñ. dëgg la te lu lii lu jafe la. doomu mm. aadama wax ba yëg xoolam mu jooy. Mm. loolu vérité la. vérité la waaw. Habib mii. lu nuy bëggante bëggante sañul mënul mënul mënul ma ko benn rangoñ ci moom moom mënu ma ko ndax gis naa taxawaayam si liggéey bi si man sama diggante ma moom ku ne xam dañuy maslaa ci liggéey bi mais bëggante amul suñu diggante ma ak moom loolu dafa leer moom dañuy négocier rek bu ñu paree bu ñu suba si mën ma dugg rek ça va ma ne ko ça va ku nekk romb ndax mu ngi tàmbalee ba ñu yóbbee waat ñu consommé jël xaalis bu bari ñëw ne Doucouré moo koy fay bàyyi maa kii war a fay femme ba taxaw jàkkaarloog man loolu ku la bëgg du ko def moo la fi bàyyi ñu yor mu ne man nii muy takk sa loxo policier bi taxaw mu mujjee la fay ko jërëjëf alors dañuy wax euh, dañuy bàyyi papa am di mu mu mu ranger fa yaay bu yàq xew waaye suba suba suba dese nañu Sportland suba incha allah papa am di waaw waaw nu nu gaaw nu gaaw ki dàqawee mbuur a ngi nii di ñëw waaw waaw non damay tëj damay bàyyi papa am di rek mu am lu mu si sànni rek ñu kii waaw waaw. waaw man euh, jot na sax. waaw xam naa damay bàyyi rek. mujj bàyyi gars yi ñu doxoon. waaw parce que temps bi xoj nañu. jërëjëf waaye lépp rafet na lépp rafet na lépp rafet na. alaaji góoro. alaaji góoro balaa muy. lanteen état kuy aawoo. asu ayca suñu guest bi suñu suñu invité bi waaw. waaw. waxal waaw waaw. waaw. 你闻，你闻，你闻。 asu saxooy géer bilaay kuy géer wayal